te yëpp échelle des priorités boobu la leen tegaloon kon lii exemple la ci liggéey Cheikh Ibrahima radiallahu anhu comme nit ki nag day doxee spirituel ak temporel nañ fexe jëriñ suñu réew waaye bu ñu fàtte mukk suñu diine wax bi muy ebal ay doomam ñu jàngi loolu leen waxoon ne leen màdd matérialisme dafa am ay doom spiritualisme am ay doom fexe leen nekk ci doomi spiritualisme yi waaye bu leen nekk doomi matérialisme bu ngeen di jàng tubaab jànguloo royloowuñ leen jikko su leen a jàngaloo xam-xam pour ngeen mën a am métier loolu tax da ngay gis toujours élèves talibé bàyyi ak étudiants yi ñoom dañuy wax seen devise mooy la plume et le plume bi ngay jàngee pour am xam mën a defar sa àdduna waaye course gi moom ngay màng sa roxo di ko fàttalikoo yàlla ndax boo dajeeg moom mu gërëm la loolu nag yaakaar nañ mooy principe bi nga xam ne mbooloo mu aju ci Cheikh Abdou Sané moom la ñuy doxee ñu ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla yaakaar yaakaar ko ci kanam njaboot gi di ñaanal sëriñ bi Cheikh Seydi Ali yàlla guddal fanam moo ñu booleek moom te mbaax yàgg naa jógee ci moom ñëw ci ñun ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam di gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm parrain yi surtout suñu mag Cheikh eh, Amadou Samb ñi nga xam ne eh, kilifa la ci pays bi waaye di jëriñ ñëpp ñun depuis ñu nekk étudiant nekk tout tànk la commencé di jàppalante ñun ci suñuy yëngatu te ba léegi bàyyiwu ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam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 mbooloo mi soppe yi góor ak jigéen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam naa ne kàddu yi du gudd ay kàddu témoignage lay doon rek ak itam wane suñ mbégte gu rëy ci teewee jotaay bi yi nga xam ne jotaay xam-xam la jotaay la boo xam ne dañ koo sos rek ngir encourager nit ñi surtout ndaw ñi ci ñu gën a sonn ci faggu xam-xam waaye itam surtout yar damay sellu na olof buy firi baati sagesse arab di ko xikma tubaab di ko wax olof baat boo demee ci école hebdo olof académie dañ lay wax mooy xam-xam buy jëriñ ndax xam-xam am na bu jëriñ waaye nga fekk ci ñaan yonent lu bari muy wax itam yàlla nañu yàlla may xam-xam buy jëriñ xam-xam bu jëriñ mooy boo xam ne day ànd jar te loolu nit ki waxtu bu nekk daf ko soxla muy góor ak muy jigéen sànq maa ngi wax madame l'invité d'honneur muy madame Diatta moo koy wax na ko Cheikh Ahmed Boukar mii yaayam mooy première écrivaine

bimi def tourner en Conakry di bind son récit de voyage ci Conakry ñu wax rexlal Conakry ya ko deg foofu mu wax na yaa ayuha albanaatu zahimna ila ilaa neylil ulaa amma bi abdan fala di adressé wu jëm ci jigen ñi nan leen na ngeen concurrencer ak góor ñi lépp luy daraja ju kawe rek bu leen ko baye góor ñi xëccoo leen ak ñom waaye nag bu leen jaxasoo góor ñi jaxasoo boo xam ne diine mayewut ko loolu ci année quarante yi waaye damay gis ne itam ci anne trente yi nga xam ne ci la fondé Médina boo doon liim ña fa njëkk tari alquran day fekk ne cinq premier yi fa njëkk tari alquran jigéen ci te loolu moo ko def waaye amutoon kër baayam doomi maamalaay ju jigéen man xaw ma ci ko ci mokkal alquran ak ñi jamonoog maam alaaj ci yeneen kilifa diine itam man xawma ci seen doom bu jigéen bu mokkal alquran waaye baay bim ñëwee loolu daf ko teel a jeexal yaay Ahmed Bukarmi, mi buñ doon wër tey Afrique de l'Ouest gisuñ jigéen joo xam ne fi njëkk publier en arabe wala su fekkee historien yi ñi ngi fi spécialisé dans le développement des sociétés islamiques de l'Afrique de l'Ouest mën nañu cee gën a jox ay leeral waaye ñun daal ci liñ xam daal gisuñ ci Afrique de l'Ouest wala bak sous-région bi sax waaw mën naa Mauritanie ñu génnee ko ci waaye li ñu wax ñun diggante Sénégal Mali Guinée Burkina bay fii Gambie wër réew ñu wër gisuñ ko ko fi njëkk a bind publié te yaakaar naa loolu sax euh, docteur Amadou euh, Amar Samb publié na ko dans son kii de euh, la, littérature sénégalaise en expression arabe Waxna ko ci kon nak ñi ngi sant Yalla ci encourager yi euh, le représentant de euh, l'éducation nationale Michel, Michel fi souligner fi point bu am solo avant suñ Amadou Samb wax na ko kana dafa am domaine yoo xam ne Sénégal def cee toll fi mu nekk nii muy domaine yoo xam ne dafa laaj ay spécialisation scientifique yoo xam ne suñ doom yi xaw nañ cee des gannaaw nañ góorgóorlu gën a encourager xale yi tegal leen ay moyens ñu maanaam mën a àgg ci loolu yàlla yàlla yombal loolu ñi ngi sant yàlla beneen yoon ci maanaam initiative yu rëy yi nga xam ne suñ mbokk suñ soppe Cheikh Abdou Sané moo ko jël muy loo xam ne amuñ sikk na mi ngi ko jëlee ci ay waajuram mi ngi ko jëlee ci ay sëriñam waaye itam bàyyi mi nga xam ne mooy premier référence am mën nañoo wax ne foofu la ko jëlee ndax bàyyi ngi wax naan rabbi هذا العبد هذا العبد الضعيف مناه في اشتغال في العلم اي اشتغال باي منى موم مبتم يب موي مانام سخلو بوم ام بن سخلا لو موي جانغال اك تسار خم خم te li ku nekk xam na ne maanaam ci jéego yi nga xam ne dafay tasaare xam-xam damay wax nag ñu mel ni moom ñu mel ni maanaam euh, suñ bokk suñ soppe Amadou Samb ñoom la bàyyi di wax ne ñu mel ni ñii góori yàlla yi yëngatu yépp ñu mel nii lañu lañ soxlaa defar fa misluhum fi nnaasi matlabu matlabu rijaali fa misluhum fi nnaasi matlabu rijaali ñu mel nii ñim doon tagg ci voyage bi kënu ak wala naylul mafaz ah euh, rihla commercier euh, ne ñu mel nii ñoom la góor ñi nit yàlla yi ñu mel noonu lañuy soxla waaye yaakaar naa ñii boo leen ci génnee doo fekk dara danaa wax tuuti rek ci ki nga xam ne mooy parrain bi depuis mu nekk étudiant lim nekk nii di soxlawu ci domaine bii nii tasaare ngëneel tasaare xam-xam tasaare njàngaleem baay mën naa wax ne dundam yépp ci la ko def ànd ak nag maanaam teggin gu mat sëkk gu mat sëkk te yaakaar naa teggin mooy li nga xam ne moo jiitu ci lépp lu jaam di sàkku baay danay wax na fal adabal adaba Ya saliku يا ذا السالك فإنه الباب saliki. سالك ngi كوي dolle دوكل di ko ñaanal yàlla yàlla jotal ko càkkuteefam aw ma sikki ci ne ponk la ci pay bi aw ma sikki ci ne moom ak ay kemam ay te bari nañ fii nag ci jotaay bi dëgg-dëgg dana ma fàttali li benn expression égyptienne di wax dunia li safiha xeer maanaam na àddina bi ba léegi lueur d'espoir mu ngi fi lueur d'espoir mi ngi fi ba nga xam ne mën nañ cee jàpp buñ gisee ñu mel nii ñu mel ni ñoom Cheikh Abdou Sané ñu mel ni ñoom Amadou sàmm ñu mel ni ñoom colonel Thiam ak neneen ak ñeneen bari nañ ci saal bi ñu ngi ñaanal yàlla bari seen kem te itam ñi ngi gënu encourage xale yi te itam di fàttali autorité locale yi fi nekk ak autorité nationale yi ci initiative yu mag yi nga xam ne Cheikh Abdou Sani mi ngi koy jël di encouragé xale yi ci ñuy gën a jàng yokk seen góorgóorlu ci njàng mi ah dëgg-dëgg te muy yitte yoo xam ne ci ñoom rek la jógee ñëpp war nañ cee jàpp yàlla na yàlla yombal lool moom nag dama xam ne rek dafa bokk ci ñaa xam ne dañuy def ànd ak lixlaas ànd ak sellal gu mat sëkk buñ sañoon sax kenn du ko yëg waaye nag lii foog nit ñi dañ koo war a yëg te itam lu baax la ku ci ñëw rekk doo rëccu li tax nga ñëw ci yàlla leen yàlla dëgëral yàlla yàlla eh, yëkkati seen maqaama dëgg-dëgg euh, boo leen gisee rek seen yëngatu day dalal xel dafay dalal xel ci domaine yu bari nii nga ko gisee ñuy yëngatu ci wàll maanaam encourager xale yi góor ak jigéen ci ñuy rawante ci xam-xam ak ci yar noonu nga ko gisee itam ci wàll lépp loo xam ne day dimbale ndaw yi pour ñu jege yàlla noonu la ci góorgóorloo dëgg-dëgg yàlla na ko yàlla dollee dëgëral yàlla na ko yàlla may wér yàlla ko yàlla yëkkati jëm ci maqaama yi gën a kawe a ñi ngi sant mbooloo mi yëpp nag ci seen teewaay ci turam ci turi mbooloo mi yëpp te itam di leen jottali itam nuyoo yi kilifaay pay bi bu dalee ci xalifa cheikh Mouhamadul Mahi ak mboolem kilifaay pay bi di leen sant ci seen taxawaay di leen ñaanal yàlla wa ma dalika allahi bi aziz di ñaanal ndaw ñi itam yàlla dool leen xam-xam ndax bàyyi danay wax ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lenn rek la ko wax na ko na ko ñaan dollal na ko ci ñaan dollal muy xam-xam وقل ربي زدني علما ñaa waxut ko mu ñaan ko ndollal ci leneen lu mooy ci xam-xam waaye itam xam-xam mooy li nga xam ne mooy jiite comme ni ko Cheikh Ahmed Samb tuddee sànq ne bàyyi ci année trente yi bokk na ci téeréem njëkk a taalif muy tabsiratul ilm tabsiratul anam fi anna al ilma huwa al imam ne wan nit ñi gën a leeralal nit ñi ne leen dara mënta jiitu dara mante dem lu mooy xam-xam ci ci la taxaw loolu ci année trente yi la ko bàyyi bind maanaam buñ toogee ba jamono bii nag spécialistes yi nga xam ne ñoo nekk dans le domaine de l'éducation di ñu siñaale benn manque boo xam ne war nañ ko jéem a combler ci nu mu gën a matee surtout dans le domaine des matières scientifiques kon maanaam loolu daf ñuy renvoyer rek ci li bàyyi waxoon kon yalla ñu yalla defal tawfiq jërëjëf jëf fu ma zalika allah bi aziz assalamu alaykum euh sëriñ bi jërëjëf ñi ngi jéggulu ci jox euh, kaddu gi Chérif mu ne dafa amoon ñaari kaddu yu mu bëggoon jotali jottali nga jàppale ko ci will talk to you later. We will talk to you later. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaw Cherif mu ne mi ngi nuyoo dégg ngeen yéen ñëpp kàddu gi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi nuyu ñëpp. nuyoo bu lislaam. nee na dafa kontaan trop. ci teewee daje bu mel nii nee na gisee na ci jotaay bii ci ne lislaam mi ngi ci jàmm tariqa tijaan mi ngi ci jàmm fayda bi nga xam ne moom la yàlla cërale cheikhul islaam xaaj ibrahim mi ngi ci jàmm mu ne moom soxlawut mu wax leen lu tax mu ñëw fi nee euh, waa fayda bi yëpp benn yaram la bu ci bu bu ñenn fe euh, kontaanee ñëpp kontaan bu safaan amee te ñaanuñ ko itam ñëpp ko yëg liñ ne tey nii loolu mooy liggéey bàyyi ak maam yi ñoo jëmbatoon lii ci ñun ittewoo xam-xam ak ñi nga xam ne ñooy étudiant ak ndongo daara yi sàkku xam-xam ñu jëmbat ci ñun lislaam jëmbat loo xam ne xóot na ba dara mënu koo dindi te loolu ñu indi woon kënu ak fetal yi xam nañ ko def nañ liñ man waaye xol yaa ngi garde lislaam ba léegi nee na dafa am benn histoire bu muy nettali am na benn dëkk boo xam ne ci kaw gi la nekk ci senegaal Sénégal dafa am ñoo xam ne ñi ngi nekk ci beneen diina ñëw fa di oote pour ñu dem ca diine jooju ñu indi lépp luñ am ci ndimbal ak loo xam ne moom la ba kan bëgg indi ndox indi courant tabax ay école defal hôpital ñëpp kontaan ci li nga xam ne moom la bakkan bëgg te ñu indi ko li des rek mooy seen kilifa ya nekk ca London ñëw pour ñu dugal leen ci seen diine ji ñu daal di def li nga xam ne mooy li ñu bëgg ba ñëwee ñoom ñëpp nag ak seeni kilifa foog ne danañ jot ci jullit ñi ñu daal di def seeni discours ak wax fi ñu bëgg a jëmee mbooloo mi ñu wax leen ne kontaan nañ ci yéen de lool ndax li ngeen indi jox ñu ko kontaan nañ ci suñ gouvernement defaluñu ko keneen ci homme d'affaires yi defaluñu ko والله جزاكم الله خيرا ah ñun nag kontaan nañ kontaante goo xam ne lenn rek mooy mottali suñ kontaan mooy ñu dem aji màkka nga xam ne gën a dëgëral suñ diine kon yaakaar naa jotaay ba day échec ñooñu xam nañ ne eh, ay ceeb ak ay suukar jënduy diine sénégalais yoo xam ne moom la fi maam yi jëmbatoon tam sax ci xol yi loolu jëfi bàyyi la ak maam yi yàlla ñu leen yàlla fayal macha na seetlu na ne nee na seetlu na ne étudiant yi nga xam ne ñoo raw bañ leen di teral waaw ñoom ñi raw tey ba indi leen fii war leen teral nee dañ daan njëkkee di mokkal alquran ñoom ñëpp ñuy ñaan ndax yàlla na yàlla yóbbu mag mais na li gën a garaaw nag fi ne mooy yàlla na yàlla may nga dem Italie mbaa nga dem Amérique muy thème bi ngeen di wax nii nee na li ñu bàyyi bàyyee su yeboo ñu wëttu ko mooy fi nga xam ne mooy fi la suñ diina jëm ak lu yëkkati suñu réew te xam ne lépp fi an nastamir fi abnaina góorgóorlu ci suñuy doom li jam maay jambatoon ci ñun ñu jambat ko ci doom yi wa qaalu an mu ne bàyyi wayjur bëggut kenn gën ko ci kaw suuf lu mooy illa waladuhu lu mooy doomam nee na yàlla yàlla fay leen ci ittewoo gi ngeen ittewoo ndaw ñi هذا الاهتمام بالعلم والعلماء ak ni ngeen ittoo xam-xam ak borom xam-xam yi نحن فرحنا أهل البيضة فرحنا في مجتمع البيضة هناك نانا مولم نيغا تيو تي ci la bokk kontaan nañ ci waa fayda bi fii ci Louga ak seen taxawaay ونسير على نهج الشيخ nañ kontaan nañ continuer suñ dox ci yoon wi Cheikh Ibrahim Rëdd te moo yoonu yoonu bi moom daf daan eh, dimbale sàkkukati xam-xam yi di leen ci ñaax ci yoonam la ñuy jaar rayaax yi dafa wax ne man yàlla maa ngi lay wax ne dëggal naa waliyu wu nekk te kenn ku nekk maa ngi sàmm li nga xam ne mooy sa xàq ci man غير أن ابن سالم هو سهمي وهي نك سيندم بغا خمنه كين كون ام غا فيتي ابن سالم مي شيخنا احمد التجاني بروم طريقه بي من موي سوما تانيف موي سوما بيت موي سوما امام موي سوما ويدو واي تي موي سوما تياكو تيف تي مبولم سيرين سي هذا صوبه موريتاني سيد محمد المصري محمد المصري باي حاشو المصري طالب باي بو ماك بوبو nga xamne mo doon wax ne bespench su ma yàlla laajee loo bëgg ma ne ko xool Cheikh Ibrahim mu ne mu ne xee mu ne dafa wax ne ànd ak nag ibnu saalim mooy suma fet mooy suma cër waa ibnu mu ne mu ne moom dafa defar wax ji ibnu Salim ci arab mooy Cheikh na Ahmad Tidiane waaye ibnu Saalum ci misra mooy doomu Saalum ji nga xam ne moo toj àdduna bi yépp cheikhul islaam kon ñun tam Cheikh Ibrahim doomu Saalum mooy suñ cër macha allah jazakumullahu xeyr waaw sëriñ bi dafa wax ne naa fàttali lu am importance te junj na ko mooy liggéey bu rëy bii nga xam ne moom lañ fi fekk te ñun ñëpp xam nañ ne liggéeyu état la te état du liggéey moom kenn mook nation bi ak population bi ñoo ci ànd ci joxe xam-xam ak yar bu fekkee ne mbootaay gi nga xam ne moo fi nekk di eh, CTBN ASG bi sëñ Abdou Sané jiite te kilifa yi mag yi fi nga xam ne mooy parents yi daaw ak yoreen seede liñ defal ndaw ñi parents yi seede ko dañu wax ne autorités yi nga xam ne ñoo fi teewal gouvernement bi lu mel nii képp kuy jàppale nit war ngaa fexe ki ngay jàppale yëg ko xam ko taxawee ko kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo fi teew te war a jottalee ñi nga xam ne ñooy autorité compétence yi ñu jàllale ko ba mu àgg fa mu war a àgg àgg ci PM àgg ci président de la république ne mbooloo la moo xam ne muñ jara jàppale la ak bépp ku mel ni ñoom ci nation bi yépp euh, alhamdulilah kon euh, gis ngeen euh, première phase cérémonie bi moo nekkoon allocution yi yi nga xam ne mënu ci ñàkk ndax ñoo taaral mbir